awazani lahu min asheytaani waxaati li mën a fexal awtaan salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki Sénégal ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew dañuy dellu siwaat rek di waxtaan ak yéen di fàttalente bi nag mi ngi jëm ci naka jëkk ba àdduna sosoo ba léegi suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mu fi indee suñu maam adama ak hawa la tàmbali di indi li ñuy febar feebar almarad adama dan febar hawa dan febar seeni Dom itam dan feebar waaye ku tedd ki bu ci li mu nu jàngal bi bu wàccee itam suñu borom bu ko wàccee dafay wàccee itam yu koy faj moo xam feebaru xol la xam yaram feebaru xool la ñuy wolof di tuddee songoŋ kenn du ko gis moom la ñuy tuddee stress wala angoisse loolu daa am lu koy faj moo tax mu ne xam dan li mun zili doona waddaa yi waaye mun zili shifa yi waddawaay ngir ñu fàttali nit ñi ni feebar jombul kenn yonent yi dañu daan feebar waaw ndax li liy composé doomu adama bi moo tax doomu adama bu ñu xoolee li koy composé ba tax muy fonctionné ginnaaw ruux gi ndax ruux ruux gi dafa invisible waaye boo xoolee kooru doomu aadama jëmm ji ak yi ko composé waaw loolu mooy waral insaan yenn mën a feebar bi feebar bu mën a ñàkk ci ku war a feebar ci bu jotee waaw moo tax bu kenn di jëfe ni maanaam kenn koo xam ni am nga màqaamam nag feebar jomb la <laughs> bu doon loolu mu jomb yonent yi du dëgg bu doon loolu mu jomb yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mooy gën ji mbindeef loolu dañu koy fàttali ngir bëgg ñu xam ni feebar bu mën a doon bu dee covid dix neuf dix neuf bii ñuy wax virus bi bu fekkente ne moom la ak beneen ak beneen feebar yi ko jiitu yépp waaw ak kaa yi ñuy wax ni day xew day xew ci dëkk bi day xew ci dëkk bee day xew ci dëkk bee waaw loolu moom bu dee dëkku Touba moom ni ñuy fàttaliku rek Matlabul Fawzayni ak li ci boroom wax waaw waaye man dama bëgg su may wax di wax ci ku tedd ki mbaa su may wax ci Touba ñu may déglu bu baax a baax ak di dégg fi may waxe maa ngi leen doon wax ay nu teeg ak yeneen teen yi nga xamante ne bi ndox mu neex la saful xorom Touba ndox ma saf xorom sax bu fekkee da nga cee bëgg a faju danga ko cay fekk danga nga cay fekk ku tedd ki def ko ca bu fekkee gëm nga ko bëgg caa faju ndox ma saf xorom laa wax de waxuma sax ay nu waaye ndox yee saf xorom sax bu fekkente ne da nga koo gëm bëgg cee faju waaye loolu kay wax dëgg yàlla waaw wax dëgg yàlla man wax leeral naa leen ni dangay gis ku jóge fële di def la muy def naan bu neexee yàlla bu neexul yàlla yàlla jay ko la muy def mu réussir ko li koy leer na kon mbir yi kay ci ngëm la tege kon li nga gëm rek ci la la yàlla di jaarale li nga bëgg wala xëy na nii képp la demee loolu rek waaye na bu kenn jombale kenn feebar bii ak beneen ci yem feebar moom ñëpp koy def waaw ñun nag suñu remet bii moom suñu baat teg kaw remet bi moom feebar yëpp lay faj <laughs> mbirum ku tedd ki la te ci kanam rawuti bët mu ngi ci kanam waaye bu kenn jombale kenn feebar daal waaw kenn jombale kenn feebar ndax ba aadama ñëwee ci suuf si ba léegi góor di feebar jigéen di feebar mag di feebar ndaw di feebar <laughs> feebar boo gis nag am na garab waaw problème boo gis am na solution xanaa ñu bañ koo gis ko bañ koo gis rek wala ñu nangu ko bañ koo nangu mbir yi daal ci ngëm la tegee ngeen baal ma ko salaam